Koritek ren gi rew mi nek ci njaqare lol ak tis bi nga xamanteni mom mo xew ci jamono di coronavirus ñi di commerçant yi nak and ak tis ak njàqare lool rawatina li nga xamanteni mom lañuy am ci walu ñënd ak njaay. heure bi da nga fekk fi do fi mëna jaar biir ma bi ci biir do ci mëna dugg gis nga ko ni mel legi ak febar bi xew ci aduna bi lal na économie bi commerce surtout commerçant yi la gën a sonal sama classe gi góorgóorlu yi. heure bi moom dama fekk fii yëpp doo am foo jaar lii yëpp ay taabal la doon doon marché bi fees dell nit ñi di ñëw di jënd waaye fi mu toll nii moom alhamdulilah yàlla xam doy la waaye ñoo ngi sant yàlla rek sant Sëriñ Tuubaa. heure bii daa fekk marché bi fees dell sa xel dal ngay jaay di dem di jënd bagage mais léegi bagage da nga yoroon sax ngay jaay. te ja yooyu sax pour nga jaay ko problème ndax gisoo gisoo ku koy jënd. fii ci marché zinc ñii di commerçant yi ak client yi ànd ak njàqare lool ndax jàpp nañu ni lii di jàngoroy coronavirus dafa lool seenu bénéfice. am na différence bu bare bare ndak, ndax bu par exemple boo doon am cinquante par par journée léegi 20.000, ngay am wala nga am 15.000. mille. ren moom amuñu bénéfice moom ren moom bu ma la waxee dëgg rek amuñu bénéfice moom dëgg yàlla parce que jaayuñu ko jaayil doo am bénéfice l'essentiel da nga am loo yóbbu sa njaboot ñu lekk rek moom moom la waxee dëgg rek moment bi kenn ku nekk daal li ngay dundee nga tal mais par rapport ak ni mu daan demee bu njëkk daal ça moom dañuy nangu ne nag dogal yàlla la parce que du Sénégal kese àdduna bépp la. lii di matuwaay yi nag ñu koy jël lool ngir fàggandiku ci jangoro gi di coronavirus. ñu ngi raxasu ak savon am nañ gel ci suñuy saak takk nañ suñuy masque suñu mee jox nañu ay gel ak yooyu yaa ma gën a xam ak ay masque yooyu yep waaw pour ñu rek. maire bi wutna ay pollu def ci marché bi nit ñi di raxasu wala ñoo dugg ku takul masque do dugg ci marché bi. tek na fi ay pollu ak yëpp yoo xam ku ñew da ngay ba set dugg. ñu ak seen bop yalla nak te teunku ci li di farata donte sax li nga xamanteni dinañ ko am as neew du mëna fajj seen ajo yep waaye dina doon lu leen di dimbali ngir ñu am lu ñu yobul njabot gi. jamono ji mom talu dara. li ñu tal daal mooy ñu wér nag ba yeneen jamono jamono sensé ñu nekk ci leneen bu ko defee nag ñu doog a tal nag suñu bopp ndax kii moom boo ko amul amoo dara. yi gën a yomb daal li ñuy jënd parce que nit ñi amuñu xaalis dëgg yàlla loo nar a jënd yére nga jënd ko loo lekk. feebar bi comme li président bi wax rek lu ñuy dëkkal lu ñuy dëkkale dañuy fexe ba sensibiliser nit ñi ñu jëm a dëkk feebar bi mais du loo xam ne mën nañoo xëy xëy jëlee ko fi. parce que ñi ñu ëpp ay moyens nga xam ne seen ay propre moyens lañ yor di ko utiliser mënuñu si dara muy ay États-Unis ay Europe yëpp ñoo gën a sonn si feebar bi te mënuñ ci dara donc li fi sës mooy jéem a dëkk ak moom ni ngay dëkkee moom nag mooy sàmmonteeg ni ñu ko diglee rek di raxas say loxo ba set di takk masque di moytu loo mën a moytu jéem a dund.